asalaamaaleykum àddina asalaamaaleykum Gambia nuyu naa képp kuy seetaan Sahel Network TV ay caalin teewalaat si biir kër gi rek seen business profile lañ wax seen programme yi looy yëngu dañ ne looy yëngu kon nag ku fi ñëw rek xam ne looy si lu mu yëngu rek la ñuy waxtaan. te lu ko lu yëngu lu ko yëngal a ko ëpp doole kon nag sa ñëwaat na rek bëgg a waxtaan ak yéen si wàllum looy yëngu te ma am gan bu tedd macha allah mu ñëw si kër gi nekk doom mi géejo waay waay Pikine la yaroo moom nag si ñaw lay yëngu ma bàyyi mu nuyoo rek wax leen moom mooy kan. laataa ñuy dugg ci question yi asalaamaaleykum nuyu naa la mbokk mi. waaw maaleykum salaam Aïcha maa lay fay waaw di nuyu waa Gambia yëpp. surtout fi ma nekk di daan sama doole. maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp. di ñaanal ñëpp koor gi ñu nekk yàlla defal ñu si mu yàlla bu suñu mujj koor. amiin yaa doon ñu fekk ay koor yu bare bare bare bare. di wax tamit mbass bi nek ci dekk bi tamit yalla jëlee ko fi lepp amin amin ci barke sama serigne Cheikh Nassir Sadou amiin macha allah waaye koor gi mom yalla ya ko re ren bi bu delu ci si waat bu ànd ak mbas mi kay doyna na bi mom ben rek la inshallah <laughs> malik malik lañ am ci bir kër gi mom nak mu nek ku yëngu ci walum ñaw xariñ lool ci lu muy def malik depuis kañ nga commencé di def liggéey bi di ñaw wa depuis depuis bi mu diggee si ñëw bi. Mhm. Euh, boobu maa ngi nekkoon school maa ngi jàng. Mhm. ba 2011. si laa dugg si ñaw bi. Mhm. dem Pikine di jàng ñëw foofu. si sama benn grand. boobu jàngal ñëw foofu jàng naa fa ay at yu bari sax. waaw. Ngok léegi 2011 nga dugg ci métier bi di def ñaw waaye kañ nga ñëw Gambia tànn Gambia pour mu nekk sa bërëbu métier fooy xamante ne foofu nga nekk di liggéeyee di daan sa doole. waaw waaw dama toog dama toog Sénégal maa ngi ñëw comme yenn saa dem dem naa ba man sama liggéey daal. Mhm. maa ngi commencé di def embauchement foofu dem HLM Maris di def mhm. embauchement foofu. Mhm. mais comme maa ngi si côté nu mu tudd si côté sama waajur yi. xam ama yenn saa yi ma liggéey. one week toog ay three weeks du ma dem liggéey xam nga ma toog toog xalaat ne lii moom. amul njëriñ ah, amul quoi xaaral ma jéem a xaw a génn tuuti. waaw after mhm. mhm. si laa taamu Gambie. ma ne xaaral may ñëw si laa dugg ci gambe 2007. waaw laa dugg si gambe ñew di ñew di ñew si marché Banjul. wa lan moo tax nga tànn gambe pour mu nekk sa place fi nga xamanteni ni nga nekk di liggéey waaw waaw gambe dafa am sama ben xarit. comme suma da nekk Sénégal moom daan jokkool. comme moma daan. ku wax naan ma bi fii ñaw neex na fi mm-hmm. na ñëw neex na ñëw bi dox na affaire yooyu mm-hmm. te kooku tamit nekkoon na sama xarit boobu nekk na nekkoon na nit koo xam si ku ma naw la mm-hmm. koo xam ne si lépp lu lu ma daan wax daal dafa ko daan gis waaw mu mu nekk shérif tamit maa ngi koy nuyu di ko ziar fa mu nekk mbok merci beaucoup Chérif yow nak ya tax malik ñewé wéer Gambie waaw Malick yow depuis boo ñëwee Gambie da nga nek di mhm. ah, liggéeyal anu mhm. mhm. sa bop wala da nga ñëké ci place. waaw depuis bi ma ñewé Gambie commencé wu dama ñëké di embauchement. ah c'est sama ben grand. manam di liggéey fenn ñu lay fay ñu may fay waaw. lolu waaw c'est là commencé. mbok ligi kañ nga commencé liggéeyal yow kenn sa bop wa si 2019 bi. en 2019 bi ñu passé nii nga commencé nga beru daal. di liggéeyal sa bopp mhm. léegi yaa ngi yor sa atelier bopp. waaw léegi maa ngi sant yàlla daal bu mhm. baax. nga léegi naka nga nekk di dundee ak euh, coronavirus bi ñu nekk nii ba pare yéen comme que yéen ñëwkat yi yéen a xamante ne événement bi yéen a ko moom surtout korité bii jigéen ñi mag yi góor ñi ndaw ñëpp ñu ngi bugg a dem ñóobu euh, seen ñëw waaye naka nga ko nekk di dundee comme. nu mu daan amee léegi amatut ko. waaw waaw waaw na moom metti na mais sant yàlla rek parce que yàlla moom du lépp lu muy def rek. lu day day nekk loo xam si moo gën si jaam ñi xëy na lii mm. la ko yàlla dogalee woon. te day yeete sax te day mm. yeete tamit xam nga. xam nga lu corona bi jaamu yàlla la comme ñun rek. Mm-hmm. parce que ñun waruñu ko waruñu ko ragal wala ñu def ko nii. Mm-hmm. dañ ko war a jox. jox respect. Mhm. ndax waaw lu lu ñëw la rek mais day dem. waaw indi na tamit ay gàllankoor yu bari si ñëw bi parce que affaire yi demeewul noonu. Mhm. liggéey bi marché yenn saa yi ngay stop. Mhm. yenn saa yi ñu may ñu time. waaw na trop saal si si ñawkat yi. ndax ay benn benn client ngay gis yenn saa yi ngay gis client bu bëgg a ñëw sax mais dañuy ragal a ñëw. ak waaw saa moom ñi ngi dund moom. nii lu metti mais sant yàlla daal parce que lépp yàlla la rek. Ngor waaye yow sa place fan la nekk ci biir marché Banjo. waaw sama place booy ñëwee ba ñu fi naan mbaaru cub rek. ci boobaa boor boobu. mbaaru cub mbaaru cub booy dem Toros Market. mu nga Toros Market bi ci boor boobu noonu la mbaaru cub nekk taxam man waa Kombola xama ci Banjul bi lu bari damay e naan damay e dégg rek ñu ne fii ak fii ak fii wala ma génn di dem interview ci laa dee gis Banjul li xew si biir Banjul Banjul daal mooy loolu waaye soo seetee tamit euh, yaa ngi yëngu si wàllum ñaw léegi yow góor a jigéen ñan nga dee gën di ñawal waaw mën nag sama client ëpp jigéen la ma mhm. jigéen laa def fa ñoo ëpp stress ñoo ëpp waaw ñoo bëri coow tamit ñoom moom macha allah loolu moom yàlla moo ko def. <laughs> loolu moom ñoo kat yëpp a koy wax. wala naka nga di dundee ak coow moomu noonu nga xam ne am na ñoo xamante ne comme amuñ patient boo xamante ne sa client daf lay wax ñawal ma lii surtout nga def benn mistake bu ndaw rek ñu nekk di la xëpp coow am na ñoo xam ne ne seen xol dañ gaaw waaye yow naka nekk naka nga nekk di dundee loolu Malick. waaw waaw xam loolu loolu tamit dafa nekk si ñoom quoi dafa nekk si ñoom moo tax. man bama ma di jang ñëw tamit ñu tarbiyé mo tamit ci loolu ñu mm-hmm. ñu yéme ci loolu tamit mm-hmm. motax tax client ak no mën a rek mm-hmm. jangal nañ ma bamay may ba may jàng nañ ma ni ma koy accueillir ak num mu ak ak xatar bu mu wala num mu rek ma dina mëna am understand ba naxtaan ak mom ba nga xamni ne dina dem bu ko défé man le tout man dina def ba bus bu ñëwaatee man lima ko waxoon mu waaw mu gis ko waaw parce que nit matul yenn saa yi ngay jox bis. Hmm. nit nga jox ko bis. bis ba ñëw waa am lu la gàllankoor. mooy lool moo tax nag ñu ne xaaral afta ñu bu ko defee ñoom bu ñëwee ak ni ñuy waxee rek. ñun ñu xam nañ waaw am nañu comporté ak ñoom. Hmm. waaw ñu waxtaan ak ñoom parce ñoom moom doy waar lañ def moom. <laughs> waaye xam nga li <coughs> yóbbante la daal. ñu ne ñëwkat yi ñu si ëpp. dañ ñak kersa amna ño xamantene dañ leena waxal comme si njëkk ak teranga sax ñu ne la ne boko boo bëggul nga baye comme ñu gantu la yow ban façon ñaw kat nga mëna wax na yow lool nga fétale sa bop waaw waaw lool tamit tegg la waye ñepp tamit yemuñu mhm. mais man mom mën wax ni man ñaw ñawkat bi ëpp kersa daal man dama am kersa ci samay client wat mhm. wax deug yalla mana aparantenga ba ni fajala soxla parce que yéen apparenté ñoom surtout caat yi ñoom moom ñoo nekk ci mu di defal man man yàlla ya def na sama sama loxo laay faje sama soxla comme ñëw nga mer mais man dinaa def tout ba lima ah? mhm. ma lay ñëwal boo ko gisee waaw di nga content trop ba fàtte loolu yëpp ngok léegi yow Malick yow nga nekk ndaw nga nekk di yëngu si wàllum ñaw lan nga foog ne comme ndimbal boobu nga soxla pour sa ñaw bi jëm ci kanam ndimbal bi ma gën a soxla lenn rek mooy client yi nga xam ne moom la ma yàlla booleel. ñu wóolu ma. am si man confiance. te topp ma rek. te jàpp parce que parce que ñoom ñoom ñooy samay doole. waaw te te sa doole moom fekk fekk fekk mi ngi ñëw si yow rek. waaw da ngay dem sa kanam sa xel day dal. Mhm. te ñun ñëw fekk suñu xel mi ngi dal rek dañuy man di. lu ñuy gën di màgg. xam nga di gën di. xam-xam di gën a di gën a génn. mais yow ban nga day gën di ñawal ñi nga xamante ne ñooy sa client. waaw dama lay ñawal ay robe comme robe yu jël taille si suuf. Mhm. wala ay tagit benn six quatre waa waaw ay style yi rafet daal <laughs> macha allah. mais yow yan façon yu touche yi kon xam nga am na ñoo xamante ne dañ day yëngu si wàllum pièce de dress kese. Mhm. am na ñoo xamante ne si pièce boo leen andee loolu la ñuy ñaw. dama day ñëw si piis yi mbasin yi mm-hmm. ak cuub ba jësneer yooyu yëpp deres mm-hmm. tamit yàlla def na am na lu ma si mën lu bare bare mm-hmm. te loolu deres yi deres yi may ñëw sax jàngaluñ ma ko loolu man maa ko ñëw rek yokk si sama xam-xam lum lu ma yàlla may la daal comme deres ay yëre tubaab bi nga comme noonu demee waa Malick eh, parce que eh, time bi xoj nañu ba pare mhm. léegi dama nga <coughs> um mën a xelal ndaw yi nga xamante ne ñu ngi toog mhm. defuñ dara wala ñoo xamante tam ñu ngi bëgg yëngu si wàllum business waaye xamuñ nu ñuy def. waaw ñu jaar si yoon bi ndaw yi moom comme que ñoom ay ndaw lañ te suñuy raq lañ. Mhm. ñu jaar si yoon bi rek xam nga respecté seen boss bu fekkee dañoo bëgg a ñaw. nga ñaw moom bala nga koy bala nga siy jariñu foog nga teel foog nga kii si daal nga tarbiyo ko bu mm-hmm. bare bare bare nga mm-hmm. respecté e sa boss xam mm-hmm. nga bu wàccee sa bop tamit bokku na si li yëkëti ñaw kat ci gaw nga wàccee sa bopp loolu daal laa leen di conseillé gor góorgóorlu fonku seen boss te wàcce seen bopp yeah. la ta ñuy tagato lan moy sa final words lan nga xamante ne loolu ngay tagato la ñi ñi lay sétan waaw xona di len sante rek di sante ñëpp ñu may sétan di sante di la sante yow Aïcha waaw sant daal sant ak kontaante daal bu bëree bëree bëri di leen ñaanal tamit yàlla lépp mm. luñ bëgg rek yàlla defal leen ko sama client yi tamit maa ngi mm. leen di ñaanal ñoom ñëpp mm-hmm. lépp luñ bëgg rek yàlla defal leen ko ci barke Cheikh Sassane Ba gis ngeen Malick kersa bu muy wax mu ngi ci moom waaye man nag lii dama koy faral di teg si table bi Malick laataa ngay dem ñetti question laa am benn bi mooy nga wax ma lan moo la gën a naqari loo xamante ne boo ko xalaatee rek sa mu dafay ceeñ dootoo kontaan da ngay mer rek. waaw man nag foog naa amaguma lu ma naqari daal si mm. sama àdduna. amaguma lu ma parce que waaw parce que lépp lu ñëw rek. Mm-hmm. dama koy sante yàlla ba. Mm-hmm. Mm, ak mu mën a mel rek dama koy. sant am na loo xam ne bu ñëwee si xel mi rek da ras ku la jege sax da koy mere doo bëgg a wax ak moom. bilaay mais am na loo xam si. Mm-hmm. lu mënul ñàkk la foog ñu wax ko. moy nga xamni ni comme ba moy juddoo ba dem ba nga xamni xamena mhm. ma laccé sama papa ñu né ma génn na aduna waaw loolu moom saa boo ko xalaté rek mhm. sama sama xel day jaxasoo ba day dem fenen nga kon nak yàlla na yalla yàlla amen fu mu dem mu gënal ko fi mu joggé yow lan mo la neex sa aduna lo xamantene boko xalaté da ngay muñ rek bu nga koy bokk nit ñi wa luma ma neex si aduna mhm. lo xamni ci bis bu nekk mu neex ma sax ci sama àdduna mooy li ma doon taaliba Cheikh na Cheikh Sadbu mooy xeer nekk nekk sëtu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam loolu daal man fekk fu fépp fu sax man loolu lay ndamoo te loolu mooy sama doole tamit waaw loolu daal moo ma gën a neex si àdduna bi yépp leneen lu lu ñëw ay milliards ak lépp man loolu moom loolu day yokk si rek waaye li may neex moom neex na ba pare mhm. su ma yàlla yamale woon fii sax sant naa yàlla bu baax mhm. ndax si loolu Lagi, dang may label wala nga wëyal ma wala nga joxe cax ñuy seetaan ta may tàggatoo def ci ben non bob tee ga leb rek. Aïcha leb hmm. ah tay nga koy fay leb koy bu mu ñëwaatee dama koy. fay ah. <laughs> kon nag mu ngoog Mali jox nañu di daje ne dina ñëwaat kon nak lo yëngu lañ wa business profile Aïcha tee won ci bir kër gi bu len faté subscribe give your thumbs up and then leave your comments bye bye. okay bye bye.